fonk sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal moo gën a gaaw ba tey man sëriñ Tuubaa sumtu noppi naa anil xes yaani walis mooy yàlla fii kuliyati ci sama biir lépp xawli moo xam samay wax la wa fi'li ak samay jëf xulluqi ak samay jukko an niyati ak walis sama yéene mu ne lépp loo xam ne mooy yàlla la rek sama lépp noppi na ca maanaam ni ngay wooree bañ a lekk bañ a naan noonu la Sëñ Tuubaa wooree ci mooy yàlla <laughs> waaw yow ni ngay wooree ni weeru koor nga xam ne dafay dox sa digganteeg lekk ak xëyti naan ci bëccëg gi ak suba gi gépp ba keroog jant di so waaw xam ne dalay na yow tey fu ne nii boo daggee boo lekkee dara mbaa nga naan sa koor gi amul benn njëriñ waaw sa gi amul benn sëriñ Tuubaa itam noonu la sàmmee ay waxam ak i jëfam ak jukkoom ak yéeneem ba benn ci ñoom du mooy yàlla benn ci ñoom du mooy yàlla moo tax ma ne sumtu woor na woor mooy noppi rek dégg nga anil insaani walis mooy yàlla fii kuleti sama biir lépp sama lépp dama dafa woor ba nga xam ne du mooy yàlla xawli ci sama waxi bopp wa fi'li ak sama jëf yëpp xuluqi ak sama jukko an niyati ànd ak sama yéene ñoom ñëpp dañuy woor ci mooy yàlla ndax bi tuddee lépp rek def na istixraax labale na waaye nag mu tudd ca xawli ak fi'li ak xuluqi ak niiti ñeenti yooyu nga xam ne yu am solo ci doomu aadama bi muy waxi boppam ak jëfi boppam ak jukkoom ji ak ati ay yéenam mu ne sama lépp daal dafa woor ba du mooy yàlla mu ne yaquudu lii tawfiiqu wal ilhaamu olooma qaybin saanaxan bihaamu yaquudu dana womatal lii ñeel ma tawfiiqu tawfiiqalug yàlla wal ilhamu ak enkewalam danañ moo matal ñoom ñaar ulama qaybin xam-xam yaa moom yu nëbbu la yu faddu la saanaha yooyu nëbbu na leen in biha mu aji nëbbu ji di yàlla mu ne tawfiquk yàlla gi ma defal ak ilham mooy di ma enkewal di ilham ci sama biit xol ak sama xalaat aw yu képp la ci ilham mu ne ñaar yooyu yàlla di ma defal ak mooy tawfiq ga ak ilham gi di ma dëppaleeg buntu yiw yëpp di ma tijjil buntu yiw yëpp di ma ilham ci sama xol ak sama xalaat yëpp nga xam lu rafet rek ak lu baax rek moo ci nekk mu ne nag ñaar yooyu yàlla defal ma nag moo may indil xam-xam yu nëbb yi yi nga xam ne suñu borom moom mii aji nëbb ji moo ko nëbbul boppam xam-xam yi nga xam ne yàlla mi nëbb mi nga xam ne kenn du gis jëmm ja yàlla moo nëbb xam-xam yooyu tawfeex gi ma defal ak ilham gi di ma enkiwal nee na ñaar yooyu ñoo may womatal xam-xam yu nëbb yi moo tax mu ne yëqulu dana womatal lii ñeel ma tawfiiqu tawfiiqu lu yàlla wal ilhamu ak enkiwalam ja enkiwal lim li may womatal mooy ulama xaybin xam-xam yaa moom yi nëbbu yu fàddu la saanaxa xam-xam yooyu nëbbu na leen in biha mu yàlla muy aji nëbbu ji. dallan tegtal na ma allahu yàlla an la bi yàlla ci boppam moo ne ma kee mooy bi ma xam ne kee la la mel ma dem ca moom moo ne dallan yee na ma allahu la rasul ci yonent yi it ali tegtal na ma yàlla woo jëttu kon nag am na sooli samag laaj. yàlla moone ma kee mooy yonent bi nii la mel dee ko taggee ni del jullee ci moom ni xeet yooyu yëpp su ko defee yonent yi moom it tegtal na ma yàlla wa alayhi mooy yonent bi dafa dell tegtalaat sëriñ bi yàlla dala ni la ala mahamadi wa qaadini mahamadi li samadi mooy bayit bi rek ku yàlla tegtal yonent bi nga dem ba yonent bi jëraat la yóbbuwaat la ci yàlla kooku ca dëgg-dëgg wa wa wa wa jett sooli moom kanaa am nga ko kuy ja jàllantu diggante sunu borom ak yonent bi kooku faaw nga am woo jëttu sool yi la ngay laaj moo tax dala ne na ma allah yàlla la rasul yonent bi wax woo moom it moom bi lii na ma yàlla woo jëttu am naa nag sool yi sama laaj daw na waqil iblisu iblis li xayri jëm ci man abada faw mu ayisan mbir moom muy aji naagu mi nii ci man bi xëy bin ànd ko tasug yaakaar ànd ko sooy goo xam ne ubbi daa saxalees na ko iblis daw na waqiit jëm ci furun mam faw iblis dootul ma jublu waaye ba ma ñàkk jublu ba tey dafa mujj naagu ci man mooy dootul gestu dootu ñëwaat ci man mukk ndax amatul ci man benn pexe ak kattan def na ma nu ne ba sonn mënut ci man dara mu far naagu ci man waaye yemut rek ci naagu ci man mooy yaakaaram yi amoon ci man yépp dafa mujj sooy tur si sama pakk xanil afaati gi dox sama digganteeg mboolem xeeti gàkk-gàkk yi wala ak daari ak nëx-nëx yi baqa aussi daaree ni mooy saxuk mooy desuk boroom ñaari kër yi wala daari ak dogal yi mu ne su fekkee am naa benn pakk bu dox sama diggante gàkk-gàkk yi nga xam ne moom laa koy falangee ak jafe-jafe nëx-nëx yëpp nga xam ne moom laa koy falangee pakk boobu ndax pakk moom bu dee ci xare daf lay dimbale dégg nga boo fexee ba not sa bakkan adduna sa bànneex seytaane kooku pakk la moo tax ma ne su fekkee am naa benn pakk ba nga xam ne nëx-nëx yi du ñëw ci man lu dul falag naa leen gàkk-gàkk yi du ñëw ci man di ma gàkkal lu dul dindi naa ko mooy yàlla mi moom adduna ak alaxira moom dogal yi nekk ci ënnuk alaxira yëpp yu neex yu naqar yëpp des gi mu fi des te du faatu daal kooku moom laa jël def ko mu nekk sama pakk pour si sama pakk anil afaati walis gàkk-gàkk yi wala ak daari ak nax-nax yi baqaa aussi daara ne mooy saxu borom ñaari kër yi mooy yàlla mi nga xam ne moom moom ënnuk alaxira te te du fi jóg mukk du dem ba yàgg ñu ne def na alfanaaw muy faatu wal aqdaari ak dogale dogale yëpp moom moo xam yu neex yi la ak yu naqari yi su fekkee am naa pakk daal mooy yàlla moomu ah, ku jël yàlla def ko pakk de dëgg dëgg ndaw pakk kawana dégg nga nekkal na lii ñeel ma kawana amalal na lii ñeel ma kun fayakoon kun fayakoon al yow ma tey ji bisran mbég moo xam ne yo doomu dafay sax faw wa kafaani te fegal na ma law ma lépp lu yeddaange tey jii may wax ak yéen kun fayakoon defal na ma mbég muy sax te du mos a dagg mukk du mos a xëtt kun fa kon tey jii may wax ak yéen musal na ma ci lépp lu yeddaange lu yàlla di yeddee nit rek kun fa yëkkoon fegal na ma ko. nafaani jëriñ na ma anaafi aji jëriñi di aji jëriñi ji di yàlla fii xaadaati ci samay xaada de xataa xadat ba mujj naa ka amali saadaati xataa xadat ba mujj na ñoom xaada yi ka amali saadaati ba mel ni jëfi sang sa yàlla muy aji jëriñi ji jëriñ na ma ci samay xaada xaada mooy li nit ki baaxoo def te yàlla toggut ko ko lu mel ni lekk ak naan ak xeet yooyu yëpp loolu yëpp ay xeeti aada la nit ki toppatoo gi may toppatoo boppam masala loolu yëpp ay xeeti aada la sëñ Tuubaa nee ne toppatoo gi may toppatoo sama bopp lu mel ni socc ak xeet yooyu yëpp xeeti aada la ndax nit ki da ko baaxoo def mu ne loolu nag su ma ko defee rek eh, maanaam ñi nga xam ne ay sang lañ seen jëf ya maanaam masalan seen julli ya ak seen woor ya ak seen natt asaka boo xoolee xeeti jëf yi ñuy jëf yëpp ngir yàlla rek tax man su ma lekkee mbaa ma naan rek moo tolloog seen jëf yooyu su ma lekkee ma naan kon léegi kon jëfi sëñ Tuubaa moom nu muy mel ak sang ya jëfi sang ak jëfi sëñ Tuubaa nu muy war a mel <laughs> da nga war a xam ne sëñ Tuubaa morom de su fekkee su lekkee mbaa mu naan kese lim baaxoo def su ko su ko defee rek moo tolloog jëfi sang sa seen jëf ya gën a kawe léegi waa moom jëfam ci boppam jëfam nu muy mel ak jëf jëfi sang sa kenn xamul ko ca man kon moo tax ma ne nafaani jëriñ ma anaafe aji jëriñ di yàlla fii aadaati ci samay aada xataa xadat ba mujj na ñoom aada yi ka xamali saadaat ba mel ni jëfi sang fara daw na lii ñëw ci man alquran alquran wala xadiisu ak xadiis yi de wan qaado womatu na lii ñëw ci man a ataawilu fireem alquran wa taxdiisu ak fireem xadiis ya mu ne alquran ci boppam moo daw ñëw ci man dafa bàyyi ñëpp daw ñëw ci man ndax xam na ne ci man la dëkk mooy alquran ji dox de sëñ Tuubaa xadis yëpp waaye nag xadis yu la ci namu de ñëpp daw nañ ñëw ci man watu naa leen sama xol sama loxo de alquran taawil ba mooy nañ koy firee yépp dafa wamatu ñëw ci man sëñ Tuubaa moo dàq firi alquran moo tax ci jamono bu firee baata alquran rek ñëpp jomm ñëpp daal di jommi waaru xaddis yi itam seeni firi ñëw na ci man xam nga nit ki dana yor téere te du xam lu muy firi mais sëñ Tuubaa bi alquran ñëwee ci ma xaddis yi ñëw lañuy ñuy firi ci boppam dañoo daw ñëwaal ñëw dugaale ci loxo sëñ Tuubaa ak dë ak euh, dënëb sëñ Tuubaa bi. yeesara dana yombala li ñeen aji xam kàttan ji di yàlla maa lépp loo xam ne sara dafa jafe ala siwaay walis ku dul man yeesara dana yombalal ba tey dee ñel ma amri samay mbir lépp loo xam ne ku man soo ko soxlaa mu lànk ndax mënoo caa jot ngir dëgër ga yàlla muy aji kattan ji ak sañ-sañ ji moom daf ma koy yombalal ba bu ma ko soxlaa man du dëgër ci man waaye sunu borom naka noonu sama mbir yëpp yàlla daf koy jàppandal tabaarakallaahu ba dara du ci jafe dégg nga amul menn mbir moo xam ne tabaarakallaahu danaa ko bëgg mu xaw a dëgër dégg du xaw a dëgër sax day nooy ca saa sa ndax loolu moom suñ borom tabaaraka taala moo ma ko defal ci saayir ak ci baatin mooy mbir mu yomb lu ma dugg rek ci anamuk jàpp ne ci la ma ko yàlla defal bunt bu ma tëgg rek mu daal di tijjeeku ah, kon gis nga ko yàlla moo ko may loolu kon ku yeboo rek tabaarakallahu dal di ko nangul li ko yàlla may ba tey sama mbind saarat mujj na ka zax yi saabiqiin tolloog niki jëfi way jiitu ña al awaliina ña da way njëkk wa taruduta mbind mi dana delloo al abiqiin way xalaku ña mu ne xaside yi nga xam ne ñoom lay taalif mujj na ci daraja ci maqaama mel ni jëfi ñi fi jiitoon as saabiquuna al awluuna lañ ca mooy minal muhaajiriina wal ansaar ñooñu nag ku ne xam na ne ñoo gën a kawe ci diina mooy muhajir ya baykoon Makka ànd ak yonent bi gàddaay dem Madina ak ansaar yañ fa fekk ñi fat leen di leen dimbale. ñoo ñooñu ñoo féetee kaw ci lislaam te itam ña njëkk a dugg ci lislaam bokko ak ña mujjee dugg ci lislaam donte ñoom ñëpp kullan wa'ada Allahul husna yàlla parapara leen dëxal na leen aljana waaye nag yemoo de yàlla wax na ko ci suratu alxadid laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfati wa qaatala dégg koo xam ne xeex na laataa ba da dégg nga lu mel ni atum juróom-ñetteel ma ak ñeenteel ma bokkut ak ka nga xam ne moom atum ñaareel ma dégg nga ca la ca la xeex ba ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu gàddaay ñëw Madina ci atam ñaareel ma ca la xeex bokkut ak ki nga xam ne dafa ñëg nag ba atum juróom-ñetteel ba mu ñëw ci fatu Makka dogo dogo dugg ci lislaam di jaar déedéet ñu du yem mukk donte ñoom ñëpp aljana lañ jëm nag mais nag seen daraja rek moo du yem. loolu nag mooy ka sax yi saabiqiin nga xam ne mbindum sëñ bi ci maqaama tolluwaay fa yàlla daraja ja saabiquunal awloona ya am mbind mi daraja jooju la am léegi nag ki mbind mbind mi moom mooy kan te xasida yi eh, sëñ Tuubaa mooy seen baay di seen ndey léegi kooku moom mooy kan moom kooku moom mooy ku kenn xamul rek foofu rek lañ ko mën a tàj mbind mi num tolloog jëf yi way jiitu ñu njëkk ña nga xam ne waxul ñu mujj ñi ndax ñu njëkk ña ñoo kawe ñu mujj ñi donte ñëpp jëm nañ aljana mu ne waaye mbind mi noonu lay delloo way alaku ña ñi nga xam ne dañoo alako dégg nga nga xam ne ñoom ñëpp dañoo alaku ñoom ñëpp mbind mi ci boppam daf leen di delloo daf leen di delloo nga xam ne ñi doon jihaar nañuy dello seeni noon noonu la mbind mi di def ba tey noonu lislaam yi moo tax ne kitaaba di sama mbind saaran mujj na ka zan yi saabiqiin ba mel ni jëfi way jiituñu al awaliin ña di way njëkk wa tarud waaye dana delloo moom mbind mi al abiqiin way alaku ña te daw ña ñi nga xam ne noonu lislaam lañ nga xam ne dañoo alaku ñoom ñëpp mbind mi na saxaabi doon delloo seeni noon ñi da leen alak mbind mi ba tey noonu la mel dégg nga wasala eggali na lii ci man al ahsama la gën a màgg fil kitaabi ci biir mbind mi man yàlla mi nga xam ne xaadawoo mat na lii jox ma kitaaba alquran bil hadis ànd hadis ya suñ borom jël na siru ismulaay ensemble mooy li gën a màgg mooy turam ba def ko ci mbind mi kon mbind mi siru ismulaay ensemble mi ngi ci kat wasala lil fil kitaaba yàlla moo jël alquran ak xadis yëpp yu wér yëpp daal di ko ma teg ko sama loxo waaye moo jël ismulaay ensemble siru boobu nga xam ne kuy jàng xasida ku ne yaa ngi ciy daw kon mu ngi noonu nasara nii dimbale na ma albaq yàlla muy aji des ji te du faatu bilaa xislaani ci durul gàcc woo wa jaxa jëmale na moom yàlla alxas la ak gàcc li man xalaa ni ñeel képp koo xam ne daf maa bañoon yàlla muy aji des ji te du faatu dimbale na ma de te du ma gàcceel mukk duma am benn gàcce ndax ku yàlla dimbal du am gàcce de sa digganteeg sa noon déedéet sa digganteeg sa borom ndax yàlla moo la taxaw waaye yàlla jël na jëmmi gàcce jëmee ko ci képp koo xam ne daf maa bañoon ndax ñi ma bañoon dañ maa bëggoon a teg gàcce yàlla dimbale ma far gàcc gañ ma naroon teg ko këpp seen kaw kon nasara ni dimbale na ma albaq yàlla ndax su ko yàlla dimbalu dimbaluutoo rek mën naa am gàcc wa wajaxa jëmale na moom yàlla alxas la ak gàcc li man xalaani jëmee ko ci képp ku ma bañoon. laxoo ñeel na ko xitaabi sama waxanteeg moom moom yàlla saakiran di ko aji sant laa saakiyaata den may jàmban mukk. waxasal ak gàccal na ala si nguur sa nga ni ne jafaa nii doon na ma béccingal gàccal na ko bàkk mbir moom muy aji jooy. yàlla rek lay wax ak man sëriñ Tuubaa di ko sant rek waxtu wu ne guddeeg bëccëg te duma jàmban mukk du ma jàmbat mukk kanaa di ko sant rek te moom yàlla gàccalal na ma ngóor sa nga xam ne daf ma doon béccingal béccingal mooy ko xam ne ku ñaaw jukku la daf lay ñaawal di la xas di la ŋàññi mu ne yàlla gàccalal na ma kookee ba mu ko gàccalee mu dëkkee jooy mooy naqar rek noonu sëñ Tuubaa yëpp ci jooy la ñuy dëkk mooy naqar ci lañ dëkk ba faatu yaa man ataani yow yaay ki nga xam ne dikkal na ma joodohoo ak tabam wal karamu ak tiraangam anta yow daal ci dëgg-dëgg al mukrimu yaay aji teral ku la neex al karimu tey aji tedd al akrimu te gën a tedd yow yàlla mii may wax daal ca dëgg-dëgg yow yaay buur bi nga xamee ne mën a maye gi nga mën a maye daal dikkal na ma sa xéwali bàyyeekoo nañ fu ne di ñëw ci man say teraanga bàyyeekoo nañ fu ne di ñëw ci man ca dëgg-dëgg daal yaay aji teral ku la te tey aji tedd ji te gën a tedd ñëpp yaa man attaan yow yaay buur bi nga xamee dikkal na ma jooduhoo am tabam wal wal karama ak teraangaam anta yow daal ci dëgg-dëgg al mukarimu yaay aji teral ku la neex al karimu tey aji tedd ji al akramu te gën a tedd ñëpp xasida googu foofu la jeex mooy foofu la yem léegi nag dafa waxoon yàlla na ko wa wahaba lii bi fadlihi wa juudihi wa karamihi wa mannihi maa ngi ñaan yàlla ci ngëneelam ak tabam ak tiraangam ak xéewalam mu may ma xasida gii daal nekk kun fa ci man nekk jëmi kun fa yëkkoon ci moom mu ne loolu nag su ma ko yàlla defalee dégg nga fii dafin ci biit joñal ma wal jal bi ak di ma ñoddil wa fii kulli xayrin ak wépp yiw bila ajalin ci lurut ak dik muy xaar ab dig wala taaxirin wala ak yéexe déedéet wala afatin du caagin gàkk-gàkk wala këdërin du caagin ay nëx-nëx amin yàlla nga nangu ñaan li man ñeel ka nga xamee ne al mulku nguur al yow ma tey jii moom la ñeel de al mulku nguur ba xablal yow mi ak lu jiitu tey jii dégg nga muy démb de moom la ñeel de wa ba'dal yow mi gannaaw tey ji ba tey nguur li laay ñeel na yàlla képp al kadi kenn kay aji wéet al kadi am na taakoon yàlla su ma defalee mu nekk kun fayakun su ko defee nag lépp loo xam ne lu may ragal la mu di ma ko joñal lépp lu may bëgg mu di ma ko ñoddil ak wépp yi wu may bëgg mu defal ma ko mu gaawee ni kun fay kon ñëw ci man te bilaa ajal bum ci am bilaa ajal mooy yàlla bëgg laa defal dara waaye nag fekk nag suba matala yàlla bëgg laa teggil aw naqar dégg nga am lu muy xaar waaw nga xam ne daal bu subaa daal dañ la ko dindil wala bëgg laa fajal xaajo waaye daal bu subaa dañ la ko fajal bilaa ajali nag mooy ca sens rek kun fay kon moom ku ne xam na ko soo ko soxlaa rek mu faju taaxir bu mu ci am ba tey yéexee nga xam ne yàlla daal nama ma defal lépp nekk kun fekkoon ci man te bu mu yéex gàkk-gàkk itam bu mu ci dugg su ma ko defalee benn nëx-nëx bu mu ci dugg yàlla nga nag ñaan yow yàlla mi nga xam ne tey ak démb ak suba ak joo ci am nguur nguur daal euh, dégg nga euh, yàlla rek la ñu yàlla tey démb ak suba ñoo ci am yàlla mi nga daal mooy kenn tey na taakoon maanaa démb ak tey ak suba yépp maanaa aduna ak barsàq ak euh, bis penc nguur yëpp yàlla moom rek la ñeel kon yàlla maa ngi lay maa ngi ñaan mu defal ma xasida gi fii dafay ci joñal ma wal jal bi ak ñoddil ma fii oo fii kule xarin ak ci wépp yiw bu dima ko defal mu mel ni kun fay kon ci gaawaay bilaa ajalin ci lu benn dik maanaam bu mu am waxtu woo xam ne dafa yegg mu doog koo def wala taqin du caagin ak yéexee wala afrin du caagin gàkk-gàkk di ci tabi wala kadrin du caagin ay nëx-nëx amin yàlla nga nangu ñaan liman ñeel yow yàlla mi nga xam ne almulku nguur al yawma tey ji ba tey ñeel na la al mulku nguur ba tey al yawma tey jii ñal na wa qabla al yawmi ak lu jiitu tey jii wa ba'da al yawmi ak gannaaw nguur yëpp dal ci gàttal mooy la alquran wax rek al kon daal lii laay ñeel na yàlla moom képp kay kenn ka di aji wet al qahaari am notaakoon xasida googu foofu la yem mu ne awonso danaa muslu bilaay ci kàttanug yàlla mi ne seytaane ci seytaane arajiim kada kuñ jàmm wala sirmandi yàlla mu ne ah, danaa muslu ci kàttanug sunu borom saytaane mi nga xam ne ku naqadee mucc la waaye nag kom sama borom mooy boromam donte yàlla daf ma sant may jéem kem sama kàttan topp ko moom mu sant ko mu lànk kon nag damay dem làqutu ci sama borom su ma làqutoo ci ma musal ma ci seytaane moo tax ma ne amoon su danaa muslu de bilaay ci kàttanug yàlla mi ne saytaane ci saytaane arajim kada kuñ jam dégg nga mu wëlis yërmande yàlla saytaane sunu borom da koo dàq mu sëri mboolem yërmandeem kon nag yàlla ci boppam kooku mooy muslu nag mooy sil inqixaar mooy borom not gi mooy ki noteel ki mooy ku not lépp bi haatil abiyaati ci yi bayit nag as sitati yey juróom benn ci lay muslu ci moom mu musal ma ci seytaane de waxiya te ñoom bayit yi xawli mooy sama wax qabla haasal haami lu jiitu mii xat mu ne muslu gi may muslu ci yàlla pour muc seytaane yàlla moom mooy kat mooy borom noteel gi te ci xasiidi gi nga xam ne juróom benn bayit képp la taxut koo bëri ci laay muslu ci yàlla musal ma ci saytaane de te xasida googu nag mooy sama wax ji nga xam ne wax naa ko dégg nga lu jiitu at mii maanaam nee na wa hiya qawli qabla hasalan maanaam at mi mu doon taalif xasida gi nee na xaat eh, mi nga xamee ne ci la wax wa hiya qawli qabla hasalan mi maanaam xasida gi xasida nga xam ne mooy sama wax mu ne lu jiitu at mii la lu jiitu at mii ci laa ko wax waaw na nag da koo dellu waxaat waaye nee na wa hiya moom xasida googu di juróom benn bayit qawli mooy sama wax qabla njëkk haasal xaami mii at dégg nga njëkk at dal wax naa xasida gi léegi nag xasida moo nekk nii waaye tënkeewut ko dara mu ne kitaaba rabbi innakal kitaabu wa fiika qaala saalikal kitaabu kitaaba rabbi ee yow téereb sama borom innaka naka yow daal ci dëgg-dëgg alkitaabu yaay téere bi wa ta nekk na ci sa biir qaala ci la waxee moom yàlla saalikal kitaabu booba la téere mu ne eh yow alquraanuk borom bi yow daal ci dëgg-dëgg bu ñuy wax téere bu mat yow rek yaa mat téere yëpp yu njëkk yëpp nga xam ne kutubu samawi yëpp làmboo nga ko mi ngi ci sa biir ba noppi nga làmboo yoo xam ne nekkul ci yeneen téere ya nekk jawaamihal kalim mooy lu dajale mboolem wax yëpp sëñ Tuubaa dana ko tuddee léeg-léeg jawaamihal kalaam mooy alquran mooy téere bu dajale mboolem xeeti wax yu njëkk yeeg yu teew yi ak yu ñëw yëpp moo tax mu ne ko daal ci dëgg-dëgg yow yaay téere bi te itam booy jàng alquran bi mu ne alif laam miim saalikal kitaabu la ca teg bi mu rek da ne saalikal kitaabu kooku waxoon naa la lu tax yàlla ne boobu la téere waxut xaasal kitaab bii téere waaye loolu dafa jublu rek màggal téere moo tax mu ne ci sa biir daal boo tàmbalee jàng téere bi rek ci la yàlla di waxee ne boobu la téere fekk loolu dafa jubloo màggal téere moom suñu borom mel ne téere bi dafa sëri te fekk mu ngi nii. kafaytani fegal nga ma xaw ma nit ñi nga xamee ne taxaw dañoo jéggi dayoo ci mooy yàlla taxaw dañoo jéggi dayoo ci beew wartaaboo te ñu sikk waxut te tey womatal nga lii ñeel ma al yaqin yaqin laa artaabu man nag moom du ma sikk mukk kon wuteeg nag ñoom. yow alquran yow lay waxat kat waay waay yaa ma fegal nit ña nga xamee ne alasina taqaw fil bilaadi dañoo jégg dayoo ci biir réew yi di rey nit ñi di mooy yàlla yaa ma musal ci ñoom de te loolu mooy nasaraani ku ne xam na ne sëñ Tuubaa dañ ko doon faati dañoo mënul ci moom dara rek waaye mu ne alquran nag su fekkee loolu amut waay waay yaa ma fegal ci nit ñi nga xam ne dañoo jégg dayoo ci mooy yàlla. te ñoom ñëpp kat irta dégg nga euh, irtaba dafa nekk jom mooy ak sikk maanaam sen xol ya lëndëm rek moo ko muur waaye nag yow alquran yaa ma wutal ba comme ñoom sikk ga nekk ci ñoom man du nekk ci man ndax alquran bi suñu borom waxee ne alif lam mim sal kitaab laa rayba la wax sikk nekkul ci de kon ka fayte ni fegal nga ma yow alquran xaw ma nit ñi nga xam da taxaw dañoo jégg dayo ci mooy yàlla war taaba te ñu sikk de ñoom ñëpp dañoo am ay sikk dégg nga ndax ayib rek moo nekk ci ñoom waxut yow alquran nag wamatal nga lii ñeel ma al yaqin yaqin laa artaabu te du ma sikk mukk lépp la wax moom du ma ko sikk mukk de li man ñeel na yàlla mi nga xam ne lahoo ñeel na ko almasiiru mujjuwaay bi ta mooy yowmal qiyaam bu dajale ñëpp di leen àttee ñi jëm safara wala yaasu billaah yàlla nañ ci yàlla musal ñi jëm aljana jëm fa kooku ñeel na ko de loolu la ko waxee ci alquran wala umóori mbir yëpp ba tey lum yàgg-yàgg rek ba tey day mujj dellaat ci moom maanaam mbiri suñu borom yëpp ala kulli halin mujj rek delluwaat ci mom mujj waa yëpp ci moom lay dellu. moo tax mu ne li man ñeel yàlla mi nga xam aji nekk la ñeel ko. almasiiru mujj waay yi wala umóor yi ak mbir yi. li man ñeel yàlla mi nga xam ne ba tey bii ci mbaaxam maa dara nii lor mukk al amiru kilifa ga. yàlla ni nga xamee ne mujj waay yëpp ci moom lay dellu ak mbir yépp ci moom lay dellu. noonu la ko ñeelee ci mbaaxam mooy sen kilifaga ga ñoom nasaraan ya kooku mënut ma lor du lor mukk li man ñeel na yàlla mi nga xam ne loxo aji nekk la ñeel ko ci moomeel moom képp sama asamaan yëpp kal araad yi ni suuf yëpp li man ñeel na yàlla moo nga xam ne ba tey xan na faa moo dàq amraad yi sama feebar li xëyri mu jëm ci furut man ne yàlla moomee asamaan te muy dëgg ak suuf yëpp juróom-ñaari asamaan suuf yëpp ni nga ko moomee noonu la amee sañ-sañub kon dàqal ku ko neex kon ba tey noonu la amee sañ-sañub dàqal ma mboolem xeeti tawat yu nekkoon ci man génn na ko ci man ba mu seet jëm ci feneen fu bokkut ak man moo xam la wala jëmm yëpp yàlla dàq na ko mu jëm ci furut man kon gis nga ko de lépp day wane na rek ni yàlla amee sañ-sañ tabaarakallahu moom yàlla nu ko neex rek def te itam du ci tàggu benn jaam du ci tàggu benn mbindeef du ci tàggu benn yonentu du ci tàggu benn waliyu waaye waaye da koy neex rek ca sansa mu def ko waaye amul kenn koo xamee ne bu yàlla def dara danaan xaaral ma tàggu ñii déedéet kon sañ-sañ bu yàlla am noonu nag noonu la amee sañ-sañu dàqal dàqal ab jaamam bu gërëm lu ko neex moo tax nag sëñ Tuubaa dafa bokk ci jaam ñi nga xam ne suñu borom gërëm na leen moo tax nag lu neex yàlla rek coobareem rek lay jëfandikoo ci ñoom dégg ta lu leen di yàlla defal lu ne rek ak dafon rek ak jal bu lay nekk mooy lu ñuy ragal yàlla dàqal leen ko ci waxin waaye lépp lu ñuy bëgg suñu borom ñoddil leen ko. li man ñeel na yàlla mi xam loo ñeel na ko alqiyaamu xayma yi wala awtaanu ak dëkk yi. li man ñeel yàlla mi nga xam ne lam yenu ko a saytaanu saytaane bii ci kattanam yàlla ni moomee xayma yi ak dëkk yi alxiyaamu mooy barab yu ñu tant di fa dëkk buñ ne euh, xayma mooy aqaama bil makaani koo xam ne dafa sax ci barab bu doon jamono ji nag ndurnaa bi biñ nekkee ci àll bi xam nga dañuy tànt lu mel ni ay tànt di ci nekk donte sax du ay tabax waaye ay mbaar la loolu yëpp xeeti xayma yi ci lañ bokk de xayma daal boo ko déggee a aqaama bil makkaani mooy ko xam ne dafa sax ci barab tant fa donte tabaxut fa sax ay soto tabaxut fa ay bâtiment yu mel noonu waaye daal moom nekk na fa rek kooku la ñuy wax xayma nga xamee ne boo ko bëgg a sempi yóbbaat ko feneen toxolu da yomb boo ko tax na nga ñëw dëkk tabax dégg ay étage ca kaw kooku moom boo bëgg a tux moom faaw da nga koy jaay rek ala kulli haalin waaye xayma moom faaw dañ koy sempi di ko toxal kooku boo demee ci xarekat yi daan nañ ko am. kon dafa bëgg wax na rek ni yàlla moomee xayma yëpp ak mboolem daluwaay yi ak dëkk yëpp noonu la amee sañ-sañu musal ma ci saytaane kon li man ñeel yàlla mi xam ne loxo ñeel na ko ci moomee alxiyaamu xayma yi ber genn yëpp li man ñeel yàlla mi xam ne loxo ñeel na ko alxiyaamu xayma yi wala awtaanu ak dëkk yi li man ñeel na yàlla moom ba tey nga xamee ne lam yeen xuni du ma jublu mukk bi ci kàttam ak saytaanu saytaane de <laughs> sañ-sañu yàlla mooy xasir gi sañ-sañu yàlla rek la ci waxtaan mu Sëñ Tuubaa xaadani woo mat na ma al islaamu jëmi islaam ilal jinaani bekk rek may dugal jana dégg nga fahenda jundalaahi fa kuréelub yàlla ba fahenda jundilaahi di max naa nekk naa fa kuréelub yàlla ba soldaaru yàlla ya laa ulaamu ta deetub yaddaange mu ne jëmi islaam moo may xëcc ba kerek may dugal jana te boo demee fa soldaaru yàlla ya maa fa te sunu borom musal na ma ci lépp loo xam ne xeeti yeddaange la yàlla musal na ma ca xaadani ma dama al islaamu jëmi lislaam ilal jinaan ba kër may dugal jina dafa henda nekk naa fa jundallahi kuréelub yàlla bi laa ulamata deetug yeddaange kon xasida googu mu doon wax ne juróom benn bayt la defe naa ne mu ngi noonu mooy kitaabu rabbi ak kafaytani liman lool masiru ak liman la liman la samaawu liman lool qiyaamu ak ilal jinaani xaadani kon nee ne juróom benn bayt bi atil abyaati as sittati te wahiya qawli kon bay di wax na ko qabla haasal ami lu jiitu at mii nga xamee ne ci la nekk mu ngi dalaat beneen xasida gannaaw ba juróom benn bayt yoo jeexee mu ne bismillah yi sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi arrahmaani buur bay xéewalaa kon ñëpp ci àdduna arrahimi buur bay aji yërëm ku ko soob ci àlaaxira allahuma yow sun borom noo ngi lay ñaan sëli yàlla nga dolli xéewal wasalim te nga dolli muccal wa barik ta nga dolli barke faw ala man ci kaw ka nga xamee ne aw nga ma kitaabahu téereem ba ala si mooy téere ba nga xam ne xulta wax nga fii ci biir téere ba wa innahu naka luy mbir tey mbir la kitaabun téere la asiisun bu tedd tedd tedd dégg nga mu ne maa ngi tàmbalee samay wax yépp maa ngi koy tàmbalee ci turu yàlla yàlla muy xéewalaa kon ñëpp ci àdduna te ajiram ko soob ci àllaaxira yow sun boroom yàlla na nga dolli xéewal ak mucc ak barke faw ci kaw yonent bi nga xamee ne yaa ma donnloo téereem ba nga xamee ne wax nga ci biir téere ba ci suratul fusilat ne téere la boo xam ne téere bu tedd tedd la wa axastu jële jël naa nag xaabilan di aji nangu raadin di aji gërëm bi xawli sama wax jii de ah waaw mu ne nag léegi nag jël naa nag ci sama wax ji mu nekk wax joo xam ne xaabil wax joo xam ne wax juñ nangu la wax juñ gërëm la wax ji muy wax alquran di ko tagg rek la ci namm nga xam ne wax na joo xam ne yàlla gërëm na ko yàlla nangu na ma tamit akastu jël naa bi xawli ci sama wax ji xaabilan mbir moom mu nekk luñ nangu radia mbir moom mu nekk loo xam ne luñ gërëm la waa akastu jël naa xaabilan di aji nangu radia di aji gërëm bi xawli sama wax ji nangu naa sama wax ji gërëm naa sama wax ji te loolu mooy alquran alquran kat képp ku ko tagg rek yàlla gërëm la yàlla nangul la kon wa akastu jël naa xaabilan di aji nangu radia di aji gërëm bi xawli sama wax ji wax ji mooy lan alquran lay tàggkat mu ne ko kitaaba rabbi innakal kitaaboo fii ka xaali xaala saalikal kitaabu gis nga ko de mu ne kitaaba rabbi e yow téereb yàlla bi innaka naka yow daal su lay melal ca dëgg-dëgg alkitaabu yaay téere de wa fii ka ci sa biir ci la waxee moom yàlla saalikal kitaab boobu la téere de ne yow téereb yàlla bi daal su lay melal ca dëgg-dëgg tere yëpp dañoo manqué dëgg-dëgg yow yaay téere bu mat bi yonent buñ ko wàcc ba tey mooy yonent bu mat bi dégg nga de te itam ci sa biir yow téere bi ci la yàlla waxee saalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin de safa sellal na xayaati sama dund kitaabu laay téere bi yàlla bi de waxat kafaani ta fegal dama allahu yàlla ku la laay bépp caaxaan téere bi yàlla bi sama dund bu demee ba amul benn nëx-nëx amul lenn luñ may xisaab di ma réglé di ko ñaawlu ci sama dund sama dund amut bakkaar amut benn ayib amul benn ñaawteef kooku alquran moo sellal sama dund de te yàlla fegal na ma bépp caaxaan waaye loolu yëpp bi mu ko defalee ci téere yi waxat kafaa ni laaw kulalahi xubbee sama bëgg man mooy ka nga xam ne ataa dikkee na minhu fa moom alkitab alquran de ataa dikkee na minhu tukkee fa moom alkitab alquran mu xaladun mbir moom mu nekk lu ñu saxal de bisaaligal kitaabu nekk na ci boobu la téere de waaye waaye cofeel gi ma am nag mooy ki nga xamee ne nag moo indi yow alquran de dégg nga te nag cofeel gi dañ koy saxal de faw mu nekk ci boobu la téere maanaam alxuraan waxuma yow rek dama laa bëgg waaye ki ñu indil alxuraan rek ca dëgg-dëgg kooku la njëkk a bëgg nag moom. waaw ka nga ne moom eh, moo indi alxuraan kooku moom laa njëkk a bëgg ah, waxuma laa nag yow nag kon nag xubbee sama cofeel man mooy ka nga xamee ne ataa dikkee na min hu tukkee fa moom alkitaabu téere bi. ki nga xam ne téere bi daal ca moom la bay ko kooku laa njëkk bëgg de te mooy yàlla de mu xaladun mbir mu mu nekk lu ñu saxal nag moom ci fel ga bi saalikal kitaab bi ci boobu la téere moom it mi ngi koy woo mel ni daf koo sori te fekk mi ko jege kooku lil bon de kon daal sama cofeel mi ngi tënku ci ka nga xamee ne téere bi mi ngi tukkee foofu te mooy yàlla te nag cofeel googu dañ koy saxal ba tey ci bii boobu la téere te sama cofeel ni mu tënkoo ci yàlla mi nga xam ne ci la alxuraan bay ko noonu la tënkoo ba tey ci alxuraan moo tax ma ne hubbee sama cofeel man mooy ka nga xam ne atta dikkee na miinu tukkee fa mu alkitaabu téere bi mooy yàlla mu xalaatun lu ñuy saxal la ba tey cofeel googu nga xam ne eh, moom laa ko sopp yàlla ndax téere bi ci moom la bay ko lu ñuy saxal la moom cofeel gi mu xalaatun bi saarigal kitaab ci boobu la téere te mooy alxuraan kon daal li mu bëgg wax ci biir bi rek mooy am naa cofeel ci yàlla mi téere bi bay ko waaye am naa cofeel ba tey ci téere bi mu doog wax nag jibril yonente bi alxuraan kenn ku ne jaa adikee na al amina ka ñu wóolu ko di jibril bil amini ka ñu wóolu ko lil amini jëmee ko ci kañu ñu wóolu fil umana i ci biit way wóor ña ta baax waaye nag min ilaahil alamin mi ngi ko jëlee ci yàlla muy borom bindee fi de mu ne kañu wóolu ko bu njëkk bi mooy jibril lan la indi bil amini bu ci digg bi nag mooy alquran moom la indi lil amini kan mooy yonent bi ñetti amin yi benn bu ci nekk bokk rek sa morom li muy firi donte amin yëpp ku wóor rek ku ñu rek lay firi moo tax nag al amin gu mujj gi mooy dellu nag ci yonent bi ba ca digg bi dellu ci alquran bu njëkk bi dellu ci jibril yonent bi nag al amin fil umana yi moom la yàlla tànn ci mboolem ñu wóor ñi ci baax rek yàlla tànn na ko ca téere bi nag mu ngi tukkee ci yàlla muy borom bindee fi moo tax ma ne jaa a dikk na jaa a mooy indi na rek al amin ka ñu wóolu ko di jibril bil amin ka ñu wóolu la indi muy alquran ci kan la ko indi mu ne lil amin jëmee ko ci ka ñu wóolu ko di maanaam ilal amin jëmee ko ci ka ñu wóolu ko di yonent bi ka ñu wóolu ko fil umana yi ci biir way wóor ñi fan la jëlee téere boobu min ilal alamin ko jëlee ci yàlla muy borom bindee fi mu commencé di ko tagg muy xasida goo xam ne yaa kitaabal karimi moom la de nga xam ne xasida goog siiw na ci jàngkat yi siiw na ci mboolem jàngkat yi siiw na ci mboolem duruskat yi léegi nag moom la indi fii de mu ne yaa kitaaban woonaal e yow téere bi nga xam ne nag kafa yaama fegal alxeda samay noon wal buhóora ak giijee de xaa idan mbir moom aji womatal nga li la si ñeel ko xam ne yu fi bu ko dana la sopp hóora jigéen hóorul ay nii de waaye waaye yow alquran woo naa la yow mi nga xam ne sama nooni bopp ya ma yóbboon ca géej gi de nasaraan sax yaa ma leen fegal de ba ma mucc ci ñoom ya ak seen loraange yaa musal ca géej ga ba lor wu ma fa de yow alquran moom képp ku am cofeel ci yow danga ko womatal jigéenu xóorul ay nii waxtu ne danga ko may cani jigéenu xóorul ay nii de ko bëgg cani jigéenu xóorul ay nii ngëbal alquran ànd koog di tuubal yàlla ànd ko ragal yàlla. moo tax mu ne qaidatan qaidan mbir moom aji womatal nga li la ci ñeel koo xam ne yu fi bëgg dana la sopp xuuraa jigéen xuurul ayni de ku bëgg ëppale ci jigéen xuurul ayni fexal di jàng alquran mu ne ko anta yow ca dëgg-dëgg saadi yaay sama yóbbal ilal jinaani ba kerek aljana ilal jinaani jëm aljana de wa noori yaay sama leer de wa noori ta mbir moom yaay sama leer xat na fay ta yow alquran daq nga allah ay na ka ñu ko de di iblis si ta yàlla na nga dolli yow alquran du xóora dàq waaye waaye su fekkee am naa yóbbal bu yowmal xiyaame bu ñuy dugg aljana benn yóbbal la am moo yow yow itam yaay sama leer gi may dox de nga may won yoon wi bu fekkee gisuma la ma waxoon ci xëcc rek indi nii xostu naa ko comme ni nga xamee ne gumba noonu lay jàppee ci njàccaar ba mu di ko womat dégg nga masaktu bil kitaab bi dégg nga masque de yi nga xam ne ni nga xamee ne gumba gi gisut waaye ku gis muy njàccaar su ko dana xam fu muy jaar ndax gu mu mi ngi sukkandiku ci ko gis noonu la alquran mel ci mom ci lu jàpp. moo tax mu ne ko yaay sama leer di sama yobal baal jana dàq nga nga ma iblis kon nag comme dàq nga ko yàlla nga dolli dàq nga muy gën di wëy anta yow daal saadi yaay sama yóbbal ilal jinaan ba rek aljana wanoo yaay sama leer xad na fayta dàq nga ala anaka ñu bu ko sitta yàlla nga dolli du xóora dàq ga yaa kitaaban woo naa la e yow téere bi nga xamee ne kafa fegal nga ma alxeda samay noonu wal xanaa ab bépp coono ak bépp coono xaturu sixtu amee naa xaturu sixtu wërsëgee naa xaturu sixtu mooy amee naa rek ari daa ngërëm bi ci moom wul xinaa ak koom woo naa la yow téere bi nga xam ne yaa ma fegal samay noon ak bépp coono ci yow kat ci laa amee ngërëmal yàlla ak koom mu du jeex mukk ah moo tax mu ne yaa kitaab woo naa yow téere bi nga xam ne kafa fegal nga ma alxeda samay noon wal xanaa ak bépp coono xaturu sixtu wërsëgalis na ma aridaa ngërëm bi ci alquran wal qinaa ak koom su ma amee koom ak ngërëm lu du dog ak xéwal yu du jeex koom mu du jeex mukk ci yow laa ko yo yow alquran kon daal ci dëgg-dëgg njaaraama yow alquran